Sodi ñun leen ko waxee ah ba tey ñi ngi ci làmb ji mu nekk combat bu mag euh, diggante xale bu rëbës bi ak Quench xale bu lébu bi. ndaanaan ngeen jàkkaar lool muy champion moom lu mu ñu analyser ci combat bi dina yanu maanaan ndax mbër la di takk ngemb champion nuyu naa la. maa ngi leen di fay maa ngi leen siyaare bu baax. yaa ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér. kañ nga ñëw na euh, bërgi démb ci fajar gi. ana waa Amérique. ñëpp a ngi fa ñu baax. nga sedd ba. waaw ma ngay sedd waaw. tey tey ñaari xale yi bëre nga xam leen yàgg leen seetaan ci làmb loo ñuy analyser le combat. waaw làmb ñaari ndaanaan la rek ku juum daanu xam naa fonk nañ ko quoi boo ñëwee rek xam ne fonk nañ bis bi. waaw ku nekk ci ñoom ñaar loolu la mën a may ndam. nga teg làmb ci yoon li sa morom mën nga moytu ko ak moom. teg yoon mooy lan. teg ko ci yoon mooy bëre li nga xam ne mooy yoon rek. genn bañ a topp mbooloo mi la toop mbooloo mi la topp ñoo la war a topp mais waroo leen a topp taxaw rek nekk ci li nga war a nekk bëre yoon quoi. ñoom ñaar ñëpp tey macha allah indi nan ci làmb ci nit. waaw ñoom moom noonu lañ mel mbëru mbooloo lañ quoi. mais nga nekk uh, dëkk ba coow li bari. waaw dinañ ci waxtaan dinaa leen woo yéen ñëpp ngeen ñëw ñu waxtaan. Ah. waaw loolu moom. ñu ciy jox dig daje. yéen ñëpp di ngeen ñëw ñu toog waxtaanee ko. li yëpp yëng ko. yëg nañ lépp. doo wax dara. dina non ci wax. Ah. mais dañ leen di wax yéen ñëpp ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaanandoo ko benn yoon parce que li war a leer bari na. waaw loolu ci solo. baa xam nga loolu. li war a leer dafa bari. Ah. yee. ne ñu bari balaa nan la. waaw mais ñu bari tedd nañ ndax mobile. bari nañu seen poos fees lool. li war a leer dafa bari dinañ. wax bëgg a wax dinañ waxtaan man ak yéen. Ah. loolu mënul ñàkk. Hmm. na